ñaanal sëriñ Serigne Touba mu Mountakha yàlla guddal fanam lool te wéral aw yaramam bali lépp lim naa la liggéeyal Serigne Touba mu def ko lu kawe njortam te bokkook murit yëpp naka noonu ñu amoon mbégte tey jii daje fii ngir waajal bisu 18 safar mu mel ni Serigne Touba bi mu jugee jugee tukki géej bi dafa waxoon ni ñu santale ko boroomam te sant googu ba mu koy wax waxul murid rek waaye ñëpp la ko boole woon waaye rawatina murid loola taxoon soxna Faati Mbay doon woote bis bi mu jàpp ko nag samedi tombeek le le 20 octobre bii di ñëw si si biir safa gi lay doon mu doon bis boo xamante ni wax dëgg yàlla mi ngi si woo ñëpp di si rafetlu seen seen seen teewaay bu baax a baax bis boobu nag da koo jël si ci ndigal ndax am murid moom lépp luy def rek si ndigal la koy la koy defee kon mi koy si ndigalu mu Muntaxa mi ngi woo bis boobu bis boobu ñu bépp bépp jullit bépp taalibe ak bépp képp kuy woo Sëriñ Tuubaa rek naka noonu si ndigalu Sëriñ Amsatu Mbàkke Jaalibatul Maraaxib naka noonu tamit si ndigalu Maam Saalihu Ngunda Faal nga xamante ne moom soxna Faal ko xam-xam ne ab Baay Faal la kon daal mi ngi woote bis boobu di si rafetlu seenu teewaay mu mel ni tamit lu jara teewee la kon ñu ngi sàkk ñëpp teew si di taxawul foofu rek tey jox Sëriñ ubbi waxtaan wi soññu tuuti balaa bis bi ñëw ak si njariñu bis bi kon ñu ngi wàcce kàddu gi foofu rek wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu gannaaw bu nu sant yàlla suñu borom tabaaraka wa mi ñu bind julli si yonentam bu tedd bi si sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tax ñu ñu di santati Serigne Touba qadimur rasul suñu yakate ak ëllëg di wax jaarama Cheikh ibrahim Fallam babul muridina ñu do lay ñaan bu baax Cheikh Mouhamadul muntaha ibnu Cheikh Mouhamadul Basir suñu borom yagal ko fi loolu tamand ko wër ba limu mu bëgg a way jërmu mu tedd waay Cheikh Basir liggéeyal ko mamam ju tedd je Serigne Touba qadimur rasul andu ko ak talibé yalla yalla agalé lépp ñu fekk ko ak jàmm ñu ko ñaanal seigne Cheikh jëm Fall mi nga xamné ne togo jotaay maam Cheikh ibrahim Fall Babul Muridina limu bëgg a maam tedd tëdd maam Cheikh ibrahim Fall yalla yalla agalé lépp di siyaara bax ak ñaanal bépp julit rek bo xamné ne nga ngir yëkëti diiné l'islam ak yaatal ko yalla yalla agalé àggaleel barakatu Seexul Xadim mbokk yi ñu ngi leen di wat baax baax. si bés bu tedd bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy bés bi nga xam ne moom la sëñ Touba digle woon te kenn ku ne xam ne ne ndigalul sëñ Touba moom jëfe rek ci biir jëfe googu nag bokki jullit yeeg bokki taalibe béy saa boo waxtu yu jotee rek kenn ku ne day fas yéene jaajuwaat takkaat laxasaayam Fidilwatuk taalibeem fas yéene liggéeyal seigne touba ñu ko Seydina Alioune waxe ci bir loolu soxna Fatou di def bes bo xamne da koy sante seigne touba diko magal gi lu am solo ndax seigne touba da wax ne mahan maxan bada li khabla an ara ridan muabada abada bi da wax ne ngi len di ye ngir ngeen xamne man Sëñ Tuuba ay coono yu méttee metti laa jànq wanteel lu jiitu may am ngërëm lu sax ni mu bëgg jàngale daal mooy lu jiitu mu am ngërëm lu sax lu jóge fa suñu borom suñu borom ngërëm ko ngërëm lu wér mooy moom jànkuwante na ak ay coono yoo xamante ne bii metti na lool kon lu baax ak teraanga ak ngërëm kenn mënu koo am te sonnoo Sëñ Tuuba nag coono yooyu mu dajale moo moo ko tax am ngërëm moo tax itam muy woti bes bi te cione la mi metti metti masa jambat masa yokkat masa deltu gannaaw si musa Ka day wax ne seigne touba nattoom yu yam da tego teewu ko andak sagom te ami mbot yu mu te doko fek fekk bi nga xamne ne yi limi metti metti limi bari bari waxtu nek seigne touba mi andak sago sago di lo am solo su nit nga xamne ñak sago da nay taxa salit te mom li yefi metti metti saalitud yoqatul deltut gannaaw kon loolu rek jar naa tax bu sëñ bi wootee ñëpp daal di wuyu si waaye ñëpp daal di jëfe ndigal la la sabab bés boobu itam mooy sëñ Tuubaa dafa wax ni wa sababu xaybatil baxida an allaha tabaraka wa taala araada lii fi l asal an akuna safian li jamihi talaamisati wa xaala bayni wa bayna nasara wa adxala fi qulubihim al xawfa minni Sëñ Tuubaa nee na li sabab sama tukki bi bu sori bi suñu borom ci bopam moom mo bëgg maramu sama talibé an akoona safihan li jamihi talamisati suñu borom ci bopam moom mo bëgg maramu sama mbolem talibé mbolem ñi nga xamanteni bi ñoo ci man suñu borom namu gumu namu maramu len sunyi tax suñu borom tegg ma natt di tukki bi waye suñu borom eh, dox sama ak tubaab bi ba nopi xoli tubaab bi sax suñu borom dugal si ñu ragal ma wa addaxala fii xaw xawfa minni nga xam ne ñoom diir bi ñu ànd ak sëriñ bi euh, mosuñu ko ñeme kon loola suñu borom toofeexalu na ko ko nga xam ne euh, ragal googu sax ak weg googu day dem ba si diggante Louga ak kokki euh, bi ñu fi tollee te sëriñ bi jiitu tubaab yi da ngay dégg tubaab bi naan sëñ tubaab yaa sayxu mahlan foq bi nafsika wa bina boobu sëñ bi war na gawaram di dàq lu bari wuti ndar ba jiitu leen ñu naan ko yaa seexu yow sëriñ bi maxlan defal ndànk lan ndànk ndànkalal ak ndànk xaar ñu naan ko urfuq bi si kaw bi naa tee ngaa yërëm sa bopp tee ngaa yërëm sa bopp te yërëm ñu waaw nga xam ne ñoom kon mel ñu ngi tàmbalee sonn ndax nee sëriñ bi urfuq bi nafsika wa bi naa yërëmul sa bopp boo yërëmul sa bopp sax nga yërëm ñu kon ñoom sonn nañ jamono boobu sëriñ Tuubaa tontu leen leen fa aqawlu lahum iitoo maa baalu mar ausin ursila lahu yatamaalu naan leen yéen daal dikki leen rek dikk leen rek ana luy solos ku ñu yónni koo xam ne kilifaam doo ko yónni muy sàggan ak ay yeexantalu ba ñu koy jiitoo kon ñoom diir bu ñu ànd ak sëriñ bi euh, mas ñu ko ñemee loolu la sëriñ bi doon dundu foofu bés bi nga xam ne nag euh, moom la soxna Fatou euh, di def waaj tay màggal gi kenn ku ne xam ne bésu sëriñ Saalihu la te sëriñ Saalihu njaareem gii ñu nekk di bokk xatul mubaaraka fi la gane àddina 1915 boobu sëriñ baa ngi njaarim ndax sëriñ bi 12 la fi ñëw 13 14 15 suñu borom wàcc sëriñ Saaliw si pàkk bu tedd bi loolu di lu rëy te kenn ku ne xam ne màggalu Touba gii itam nga xam ne Cheikh Ahmadul Fadilu moo ko woote Touba màggal gi sëriñ bi njaarim gii la ko njëkk a wootee am na ñu wax 16 vingt 1921 la sëriñ Touba njëkk a màggal gi fii mu tombe ak bésub talaata kon sëriñ Saaliw mi ñu darajaale bés bi fii la ganee jamono. waaye màggal gi nga xam ne itam moom la ñuy màggal euh, muy 18 safar gi fii la ko Sëñ Tuubaa njëkk a wootee fi njaareem kon fii la lépp xewee kon euh, koo xam ne nekk nga si dëkk bi euh, di def bés dara jaale ko sëñ Saalihu bés bépp nga féetale ko sëñ Saalihu def nga la la war wàcc nga itam rawatina nag ngay ndaw ndax ku tudd sëñ Saalihu sa xel dina dem ci ndaw ndax kat damay wax saa su nekk ni moom sëriñ Saalihu gannaaw bi mu jaaree fi mu war a jaar ba mu sëkk li mu doon bi sëriñ bi wuy jee boromam mu nekk fekk ñi nga xam ne mën nañoo ne ñooy ay magam la ko doole Cheikh Ahmadul Moustapha Cheikh Ahmadul Fadilu Cheikh Ahmadul Basir Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir ba ñooñu ñëpp kenn ku ne liggéeyal sëñ Touba ba sa liggéey mat mel ni 1980 maanaam 91 la sëñ la la sëñ Saliou doon sëñ Touba doon googu mu doon sëñ Touba nag euh, liggéey si liggéey bu rëy. si jullit ñëpp si mag ñëpp waaye rawatina ci ndaw ñi ndax ah, dafa wax ne nañu ma jox ndaw ñi sëñ saalihu ndaw ñi la laaj mel ni kuy wax ak yow nga ne ko looy dayee ndaw ñi mën na la damay def si ndaw ñi la sëñ tubaa defoon sa mag ña la sëñ tubaa defoon sa ña moom laay def si ndaw ñi sàllaaw de bu ma ko yellewut sax ma barkeeloo ko xam ne yow mi am xel tey jàngat sax da nga xam ne sëñ saalihu kon li liggéey bi rëy rëy dafa barkeelu rek kon ndaw loo xamante ne bii eh, tawféex Sëriñ Saaliw jooju dugg nga sax eh, ba nga dëgmal Sëriñ Tuubaa dem ba am pas-pasu taxawal bis ba xalaataat Sëriñ Saaliw ba tuddaat bés bi Sëriñ Saaliw eh, kookee xam na la ko waral kon bés bi bésub Sëriñ Saaliw la Sëriñ Saaliw nag nekk kenn ci njabootu Sëriñ Tuubaa damaa tudd leen rek si ndaw ñi waaye noonu la demee ak lépp rek ndax bu dee liggéey ko saalika naka noonu ndax tool yi nga xam ne tey Eh, bokk na si tool yi ëpp si réew mi muy xel Xelkom euh, moo ko dagg eh, fas yéene ko def tooli Sëriñ Tuubaa ndax eh, liggéey ba la muy rëy ak la muy yaatu yaatu mën di jóge sa tool yooyee si si liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi la jëm si liggéey bi bi la jëm daa dimbale jullit ñi itam ndax tool yee tool yooyee képp ku fa teg sa tànk mënoo yem ak ku fa tegul tànkam muy tooli Sëriñ Saali yooyu di Xelkom te ngërëm itam ku fa teg sa tànk ba ba am xel mu dal ne am nga ko ndax euh, daa nekk tool yoo xam ne bokkut ak yeneen yu dul moom euh, kon loolu rek mu doon dimbale jaam yi euh, daa doy sëkk leneen la su topp mooy Serigne Saliou ak bëgg gi Serigne Touba nga xam ne yéemal woon Serigne Touba ak lu yàlla bind xam xam xam gëdday Serigne bi ba noppi nag warmal Serigne bi weer wii ñuy dugg mu weeru safar Serigne Saliou amoon si cofeel amoon si ak bëgg lool daa si soññ lu baree baree bari nga xam ne saa boo xamante ne bi yori yi tolloon na fii day wax soññ si màggal gi soññ si njàngum alxuraan mi soññ si njàngum xasida mi soññ si bernde yi gën a soññat taalibe yi loolu lépp la ko woon mooy bëgg gu mu bëgg siñ Tuubaa ak liggéey bi nga xam ne Sëñ Tuubaa tegoon na ko fi loxoom mu fës yéene ko ànd ak taalibe yi yërmande ja itam mu nee su ko takk ndax yërmande Sëriñ Saliou dem na ba mënta dem bàyyi kenn dem na ba loolu mënatu ko téye mu waxal ko boppam jiital gi ma Sëñ Tuubaa jiital si yéen dama koy ànd ak yéen rek noonu ma ko waxee waxam bi doy waar joojee eh, bu ma geesoo gisuma leen damay dëpp topp leen waaye duñ tàqali ko kon kooku eh, am na yërmande si jaam ñi te Cheikh Ibrahima Fall dafa wax eh, boo bëggee bokk si boo bëggee raw gaañi nee na da nga leen di jiitu ba noppi neg leen Cheikh Ibrahima nee na boo bëggee nekk si kanamu gaañ noonu ngay def da nga leen di jiitu ba noppi neg leen Sëñ Saaliw daa jiitu ba noppi nege ndax kenn ku ne xam ne mboolem ñi mu jamonoonteel tolluñu ko fii waaye kenn ku nekk wàcc na boppam ba tollu ak yow ngir fas yéene naa dimbale gone gi gën a tuuti day wàccee boppam ngir fas yéene ko dimbale moo tax suñu borom toofixal ko ba loolee am na moo tax may wax ne mu jóg te way ki gën si nun cheikh salihu ibnu sayqil xadimi mooy borom jamono ñun ndaw ñi ku si am xel mbaate ngay xelu war ngaa jóg dawal sam xel si borom jamono di ko way di ko tagg di ko kañ si waxtu wu ne ngir moo fi ñëw defar ndaw ñi mooy borom jamono. Cheikh Saliou ne woon ndaw ñëpp nan ñëw fi man man ma def sa ñoom lam ak ñooy ron may borom jamono. di tarbiyee tarixiyee tasfiya ba ñëpp baax mu yor leen yar leen yee leen kii yee moom jamono kon euh, sëñ Saliou foofu la nekkoon euh, moom jamono euh, yilif jamono sëñ Saliou ak fépp ndax boo duggee sëñ Saliou ak xasida itam noonu la ñu demoon xasida da ko daa jàng daa ko jàngulu daa digal murit ñu koy jàng daa digal murit ñu koy jàng ngir xam ne eh, taalibe bu mu mën di doon xasida bu nekkee si sab dënn mënoo yem ak ko xasida nekkul si dënnam ndax nit ki nga xamante ne bii eh, mokkal na xasida mu nekk si dënnam eh, wax nañu ne bu duggee si biir bàmmeelam xasida googu dana ko jariñ njariñ loo xam ne lu dul xasida gi mënu ko sëriñ bi bi muy bi muy tudd sànq bi muy jiital kàddu yi sànq tudd na si si ñu xam satu kuko ko di nga tudd khasida ngir lan fa jël khasida man nañu ne do ci may kenn na khasida gog nga xamni nak kuko eh, ku khalib dem ci muy khasida ak marahib nga xamna way kat ba day wax ne samaytuha zalibatul marahibi fi ajilin ka ajili lirahibi bamba ko def muy tarbiya di dara, mo marahib. Bamba ko def muy tarbiya di dara, waa ju si sax faw nga raw ñooñ dara wabi rabbi rabbi kulla mutalih li wajhi rabbi daa jina ne waaju si sax taxoo ko rek di jàng lu mu yàgg-yàgg dootoo jenge ngir day defar jukkoom ya aar cërëm ya setal xolam ba faaw mu daw moy ya nga xam ne xasida la goo xam ne boo ak moom dana defar si biir dana defar si biti dana defar si saxe dana defar si te dana jubal say mbir itam kon bés baa ngi noonu euh, yalla na yàlla yóbbu seeg jàmm barke Sëñ Tuubaa li nga xamne ne la si soxla si nal fas ko and ak bokki talib yëpp ko yalla agalé barakatu khadim ñu ngi jégg lu baax kaddu yi lépp lu si jub boole nañ ko ak jëm ji daf ko day sëñ xadim Rasul lépp lu si dëng si ñun ñii la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi rafetlu kaddu yi sëriñ daam bu baax a baax di ko sant wax dëgg yàlla gis nañ si ab taxawaayam si liggéey sëriñ tuba rawatina bi ñu duggee ci weeru safar nga xamante ni xel yi dem si moom si safar yi ñu organisé ku nekk rek da kay woo ndax li def wax dëgg yàlla doon na koo xamante ni siiw si njaarim rawatina gox bi nga xamante ne fii sëriñ Tuubaa nekkoon di kër gu mag kon sëriñ daam ñu koy sant bu baax a baax wax waxtaan wi ak woote beeg soññee bi am na solo trop kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waa di santaat bu baax tamit di fàttali rek ni bisi moom daanaka ni ko sëriñ daam waxee sànq am na solo bis tuut borom lay lay nuru kon ku dégg lii rek nga xam ne li lii doy wax nii mooy mooy sa woote si bis bi ndax dem ku si ku nekk nga jox ko carte moom karna ga ja jàkkaarloo teel bi gis ko moy li gëna yomb kon woote bi gaaw dal mi ngi nonu programme bi nak ni ni muy tëddee moy mooy buñ xeyé suba 8h daan def comme ni ubbé bép bép xexew té moy jang alcorane karim ndax alcorane lepp lo gis rek mo lañ ko war ubbé mo moom lañ ko war a té buñ ko jangé tamit daan tak xasida ndax ko alcorane ni nga xasida mënuñoo tàqali naka buñ paré dan buñ ba bi waru ñaari waxtu te mooy 14 heures def benn taxaw bu tuuti daa def julli daa def ay bernde daal bu demee ba 16 tamit ñu daal def animation bi naka noonu 16 jàpp 18 si la ñuy def service café Touba et rajas nga xamante ni café Touba beeg rajas beeg yëpp jànkat yëpp kon seen fanfaat mi ngi profité foofu di sewoo ñëpp képp koo xam ne dégg nga ko rek te ab jànkat jàppal sa boot daal mi ngi noonu. nekk noonu bi ñu demee ba 18 heures 19 heures tamit daan defaat pause et prière 19 heures 20 heures daan def mise en place des invités foofu tamit maa ngi taxawlu baax a baax di di si jiital ku si mel ni monsieur le maire ndax ñëpp xam na ne mooy kilifa dëkk bi di monsieur Malick Fall ñu ngi si woo baax a baax ak bépp honorable boo xamante rek yaa ngi si dëkk bi di sàkku ñëpp seen teewaay nekk noonu bu ñu demee ba 23 heures daan amal cérémonie officielle boo xamante ni. Serigne Ibrahima Ndim moo koy animé Serigne Ibrahima Ndim nag yaakaar naa ñëpp xam nañ ko si rajo bi siiw na trop si waa diwaanu Njaaréem kon ñu ngi rafet lu baax a baax si li nga xamante ni soxna Fatou tànn na ko ngir mu def ko ndax wax dëgg yàlla thème bi ñu koy jox ku koy ku man la naka noonu bu paree daan si toftal Serigne Abdoulahi Koundoul xasida Abdoulahi Koundoul xasida yaakaar naa ñëpp war koo xam si jàng wax dëgg yàlla njàngam day bégloo murid bu baax a baax naka noonu Serigne Dame Sène mi nga xamante ni moom doon waxtaan moo doon wax léegi tamit dafa mel ni kon moom mooy tëj waxtaan wi si dégg laa ñu wax soññaan ñu ci sëriñ bu baax baax baax kon noonu la bis bi tëddee naka noonu bu dee zéro heure ba ba fajar day doon ay sikru rek nga xamante ni ay sikkar lay doon tudd yàlla Serigne Cheikh mbay Thiès moo koy moo koy moo njëkk jàng bu pare Serigne Fallou Diouf mbuur ñu toftal si Baye Fall Kend et Abdoul Fall Jurbel naka noonu sëriñ maam Cheikh Ndiaye Thiès moo koy tëj kon programme baa noonu képp ku déggal nga xam ni loolu mooy sa woote te xam ni woote bi nekkoon na soxna moo la woo waaye sëriñ Touba moo ndax sëriñ Touba koy defal te rawatina tamit ki ñu ko dara jaale muy sëriñ Saalihu nga xamante ni léppam da ko defoon ci ndaw ñi rawatina tamit sëriñ am solo mi nga xamante ni bokk na ci ñi nga xamante ni moo tax taxawal bis bi tek si am si ko xam rek comme nek ko ndam daam waxee di di jaalibatul betul nga xamante ni li ni si wax si ay njëriñam bari na lool kon nga nga xam ne sax bokk na ay njëriñam sëriñ bi na ni tey ji buñ ko yoron di dem si armel romb ab néeg nek boobu pucc pucc ba nek parce que si kaw ñi ànd si sil rob bi bu ko kenn gisee rek nee na néeg boobu yaramam na safara kon loolu jaalibatul maraaxib rek moo ko mën nga xam ne xas lu ne lay def ndax sëriñ mi wax si biir naan waxaw li man yaqra'uhu aw yaktubu xayral muna yaa man atat ni kutubu yow yàlla na nga may képp koo xam day jàng xasida bi wala mu koy bind lépp lu muy bébét lag la wax lépp lu muy bébét dem na sax ba naan wahab li man xafisahu aw xasala bi ay wajhin bi nabi amala na nga may képp ku ko mokkal wala mu am ko ak nu mu ko mën a amee la wax na ko may la muy bébét kon xasida gi yaakaar naa lépp lu mu si fas rek war nañ ko sam rawatina mu dara jaale ko bis ak kon daal lépp daal kenn mën ko wax ndoo seen faatu ñu ngi koy sant bu baax a baax xanaa mu kontaan rek di woo ñëpp ci bis bi kon loolu si gàttal moo nekkoon woote bi di fàttali bis bi le 20 octobre lay tombel 18 le 20 octobre lay tombel fii si buntu kër Soxna Soxna Faty si wetu armée li kër gu mag rek si si lonkit gi lay doon incha allahu taala kon ni ngi taxal sant bu baax a baax di sant Serigne Dame di sant Serigne Mor di sant Serigne Bara bu baax a baax nga xam ne moo nekk si caméra bi sant tamit soxna Faat bi nga xamante ni moo aay bés bi kon lépp lu si jub rek nga xam ni si ju doon wax la lépp lu si lépp lu si jub rek nga xam ni yàlla moo def ak baaxu Serigne Touba lépp lu tamit ñoo xam suñu mat bi la ak suñu ñàkk xam-xam bëgguñoo loolu jubal in uri lil islam mastaatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu